ñun nag nii la ñu mel bu ñu faree àdduna bi yëpp dañuy xam ni dañoo far ndax ni ñu mel la yàlla moo ñu bindee noonu xamuñu ñaar xamuñu ñett kenn ku ñu bëgg dañuy foog ni chaque jour moom moo war a fës Aziz Aly Ndiaye man maay waxaat ak yow encore une fois géejawaay gërëm nañu la géejawaay sant nañu la géejawaay fonk nañu la ni nga def Balla Gaye ñun waa géejawaay xam nañu ko ni nga def Balla Gaye umpul kenn fi nga jëlee Balla Gaye ak fi nga ko indi nëbbul li nga li nga sañ a def ci Balla salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal maa ngi leen di siyaar maa ngi leen di bégee maa ngi leen di jox seen wàccuwaay ñoo ngi massawu fan si Balla Gaye 2 yëpp di leen wax ni baal leen ñu àq yàlla nañu yàlla boole baal ah àdduna nag nii la làmb nii la kuy bëree daan kuy bëre la kuy bëre la ñuy daan ah lii lépp nag yàlla suñu borom la moo ko dogalee nii dañu koy nangu waaye dinaa leen fàttali ne Balla Gaye 2 teraanga gu ne indil na ko biir géejawaay teraanga gu ne sagalee na ko Sénégal ndam lu ne indil na ko Sénégal ndam lu ne indil na ko géejawaay gisuma doomu aadama boo ko sañ a def ci nit barke Cheikhul Khadim Aziz lépp lu la waaye wax lu dul gàcce ngaalaama Aziz Ala Ndiaye jërëjëf Aziz Ala Ndiaye merci Aziz Ala Ndiaye barke Cheikhul Khadim buy dee di lakk ndax yow gaynde nga garmi nga champion nga boxuma la Balla Gaye de waaye Sénégal njaay ñëpp la wala solicité ndax ni ngay defal doomi réew mi Aziz jërëjëf encore une fois merci bul bàyyi mukk gën a la jàpp barke Seexul Xaddim Balla ñun yow la bëgg lay tey bu luy xewee nag dañ koy sante yàlla suñu borom te xam ni Balla ñun say fans ñun ñi nga xam ne ñoo la bëgg lépp lu ñu mën a dégg ngir yow barke Serigne Bamba on est fier parce que yow la ñu bëgg te ci yow la ñu yam Balla yow la ñu xam yow la ñu bëgg tey la ñu la gën a bëgg tey la ñu la gën a naw tey lañu la gën a fonk Aziz Ala Ndiaye amuñu sa fay fi nga jëlee Balla ak fi nga ko indi àdduna bi yëpp teg nañ ci sa bët seen bët barke alxuraanu karim Aziz amuñu sa fay waxuma la Balla waaye Sénégal